da dégg ko naan yàllaay maye yàllaay xañe waaye su jëfee nga xam ne la mu wax wuti naag la jëf ku yàlla tànn soo ko bëggee toroxal yow yaay sonn ku yàlla seetaan itam soo ko bëggee musal a ah, ni nga coono de àddina lu yéeme la waaye jëflante ku amul xel moo fi gën metti métti ñi itam ñu sonn lañ kuy àndak ku gàtt xel ak jigéen juy séeg jëkkër ju la bëggul ak kuy jëndaloo soxlawul foo mën di nekk ak koo xam ne mënta ñaan te lum liggéey yàq ko ak ku am yéene def waaye amul alal téléphone tere naa teewlu tere nañoo teel a tëdd